TV maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm comme ni ma koy defee saa su nekk tey nag di bés bu spécial ci jullit ndax ko wax tabaski wax xam xam ne feet bu mag la ci kuli jullit ba tax na foofu laa jaaree rek di leen déwénati di leen baalu ak di leen baal ak internet yi nga xamante ne yëpp ñoo ñuy seetaan ak équipe bu bataaxal TV bi yëpp équipe bi yëpp maa ngi leen di baalu ak ndax ku ne xam na ne ak dafa sew te bés yu mel nii day baax ñuy baalonte ak di ci saafonte ginnaaw nag ku ne xam na ne tabaski soo xëyee da ngeen dem julli ji baalonte ak dugg ci waañ bi gayeen yeeg jaween yi rey seet bopp ba na nag ngoon gi gis ngeen ni ma def tarkaal la ma ànd ak lébu gi coiffure ñu daal di ma defal nii rek ba ma jonga ma ma daal di seet si nag koo xamante ne ndaanaan la tey nag maa ngi fii ci diwaanu Tëngéej ma seet koo xamante ne kenn du ko présenté ci li nga xamante ne loolu lay yëngatu ndax nee naa génération bi mu bokk fexe na ba dégg ci meilleur tey nag sama invité dama koy daal di codé dama koy daal di bàyyi rek mu nuyoon teeg internet yi saafoon teeg yéen déwénati leen. joli cœur a joli cœur la salaamaaleykum sista maa ngi lay nuyu di la vraiment ci seen teewaay surtout tey muy bési it ñuy déwénati ñëpp képp ku ñuy seetaan ñu ngi lay Hmm, rawatina waa Bataaxal TV ah <laughs> ñu leen di déwénee te aussi di leen ziar bu baax a baax di déwénee Sénégal yëpp hmm, di ñaanal ñëpp jàmm. Euh, comme ni ma ko annoncé woon nee naa yow feerte nga macha allah ndax fi nga génnee man su ma lay dégg ngay way dama naan Youssou nduur mooy way <laughs> moo tax bokk nga ci jeunes yi nga xamante ne damay bëgg di leen déglu ndax way rek way rek ngay def macha allah. mais ñu dugg rek ci li nga xamante ne tey moo tax ñu seet si la mu di spécial tabaski waxtaan aussi ak yow ndax da gédde lu am solo macha allah comme nga def rek na woon fa woon ndax miin nga ko <laughs> ñu bàyyi la rek nga waxanteeg internet ci nan nga passé sa tabaski nan nga dundee bés bu spécial bi daal di profité rek baaluwaale fan si yëpp ak <laughs> waaw surtout loolu day am solo parce que tabaski moom dafa nekk euh, fête boo xamante ne maanaam feetu jullit yi la monde bi yépp la parce que maanaam dafa nekk fête boo xamante ne maanaam fête la boo xamante ne bu jotee nga amil nit ak nga ñàkk amil nit ak foofu diine dalay dalay dalay dalay daal di may rek nga baal ko ak te du may sax parce que exigence la je peux dire nga baal ko ak ma jàmm sax ndax ànd dëkkandoo moom jàmm ca gën rawatina nag ñi nga dëkkal hmm, nga boo yeewoo sangu ba set jàpp dem julli ji ñëw rendi xar yi bo defé li nga def yëpp sañca bu rafet daagu nànk génn nak dem ziyaar yi dëkkandoo yeeg am di jamm yeeg soppe yeeg ñëpp te balulin leen àq ndax àq dafa sew nit di nga amel àq te te te yow do xam sax ni amé nga ko àq ay vraiment nak bës la bo xamanténé ne bësu jamm la bësu mbékté la bësu rétan la ñi ci profité aussi di déwénati soppe yeeg xarit yeeg andi jamm yeeg mbokk yeeg képp kuy Moustapha ñu lay niti di la bal ak di la bal bu baax baax di la ñaanal jamm ju bare bare bare bare ci bisu tay bi xar bi mbëkk la rek non jotuma nak la <laughs> taw mo mbëkk dal la ko maytu <laughs> mais ex da nga ni non de wa bobu xamna bobu manam lima lek ma wacce gu non te fum tol ni wacce na <laughs> wacce na voilà Moustapha tay mo moy suñu invité ci spécial tabaski bi xamé ngeen ko Moustapha ginaaw biñu joggé ci tabaski gi balu nga fan si àq ni nga xar bu mbëkku la man nak tuduna fi sa nin nin nin nin rek la wax nak yenté no ci wax wu ma dal mais jëli ngeen fi ma bëgg dem xamna né ne Moustapha ya de y'a cela 2 ans nga lancer sa carrière solo mhm. loo sentiroon ne jot na la wala da nga tarbi yu bañu ber la waaw dafa di manam bo xolé depuis 2013 ba tey ñu ngi nek seen petit galé et di évoluer nank nank di liggéey ndànk-ndànk muy jaar yoon ndànk-ndànk et eh, fi mu demee ba jot aussi vraiment Tata ne ma koy saluer aussi de passage di ko nuyu di ko déwénati di ko baalu àq bu baax a baax a baax ndax ñu ko <laughs> maanaam ñu doon ko sonal lool nag et vraiment mooy suñu yaay nag yoon la ñu sonal ko mais ñu koy saluer de passage eh, boo xoolee nag carrière bi biñ koy jël boobu mën naa ne jot na parce que jaar nañ seen petit gàlle maanaam. reprendre nañ ay son yoo xamante ne vraiment wane nañ sunu talent et aussi tax nañu maanaam sénégalais yépp xam ñu et aussi bi mu demee ba jot nag si lañ ne pourquoi pas ñu lancé suñu carrière solo ak prince art ak tata ngone et vraiment bi mu jotee nag biñ ko defee gis nañ ci réussite waaye parce que boo xoolee suñu premier son bi ñu lancé muy joli cœur son la boo xamante ne vraiment gars yi aimé nañ ko et manam gars yi gàttandu nañ son bi parce que boo xool li koy waral c'est-à-dire biñ ko même pas deux semaines ou bien deux semaines juste ñu yegg deux millions de vues et vraiment loolu mbégte la ak contentement ak sac ndax dafay que ni rek sénégalais yi ñu lay et aussi bëgg nañ la ndax nit dara mu même pas un mois am succès am buzz maanaam nit yi bëgg ko nit yi vraiment contentement la et ma maanaam ma leen di saluer ci loolu bu baax a baax parce que tey yow mun nga génn dara nit yi bëggu mhm. ba léegi Joli tey la gën a yaa de cela la génn te tey la gën a neex. man dafa mel ni man Joli Cœur tey laa koy <laughs> non mais li koy waral mooy liggéey bi jaar yoon rek parce que tey dara boo ko defee liggéey bi jaar yoon mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey la boo xamante ne dañ ko def maanaam parce que dañ ko bëgg. parce que tey je maanaam je dis tout temps que ne musique soo ko bëggee maanaam looy def rek da maanaam da koy def ak xol bu sedd da nga koy def maanaam parce que da nga ko bëgg may way dama koy dama koy def ndax dama koo bëgg rawatina nag ngay way nit yi bëgg ko. Mhm. ñu gis tey say son euh, paroles yi day riche torop bind bi bind bi day jaar yoon macha allah Moustapha ku nekk sa ginnaaw wala yaay bind. non parfois nag maay bind mais aussi boo xoolee. ñun am nañ ay nit yoo xamante vraiment ay cadre lañ ci musique sénégalaise et aussi ay ay ay professionnel lañ ku ci mel ni baxaaw dabrens ku ci mel ni suma papa njawar et vraiment ak ak ak membre prince arie parce que tay jii nii manam bu jaaré yoon rek ça veut dire que manam wala texte bu riche rek ça veut dire que manam ki koy liggéey wala ñi koy liggéey au moins jël nañ ci temps saytu ko wat ko parce que tey y a des paroles yo xamantene koy use manam day nekk maanaam il faut nga jël sa temps parce que tey bind texte yombul nga toog si benn jour bind texte yombul nga toog si deux jours bind texte am na nag ñu ko yàlla may mais pour wane que ni rek maanaam gis nga nit looy def rek maanaam am na ku la ko gën a xam te kilo ko gën a xam soo ko jëlee taf ko sa bopp maanaam def ko ni sa bopp boo amee dara wala ba nga am idée dem contacter ko wala nga dem toog ak moom ne ah lii kat la am idée et moom mu conseillé la ci yaatalal la ko ba mu gën a yaatu et loolu lu doy war la. Moustapha <laughs> dafa mel ni waaw saa teegoon naa loolu ay ay kangam ñoo ne ci ginnaaw Moustapha <laughs> mo waral sa sa saa yu ñëwee rek yu fi cartonné macha allah ñu gis aussi euh Moustapha nga jógee ci euh, Petit Gallé nga def sa chemin nga ñëw Moustapha toujours tay ci dafa am son bo xamante ne danga ko interprété woon ñëpp naan Youssou Ndour moy way gis jour final bobu ngay way Youssou Ndour am lu mu yëg. tay moment yooyu tay ci sa biir carrière lan la la def. waaw loolu loolu daf ñuy motiver c'est-à-dire gis nga gis nga nit booy def dara li ma la wax sànq rek bëgg ko maanaam boo koy def maanaam da nga koy def te yàlla tax maanaam li ngay def te yàlla tax te yow nga bëgg ko maanaam booy def lu neex sa xol lay njëkk a dugg xëy rawatina aussi sama papa Youssou toog may way maanaam di reprendre son parce que ku ne xam na ni son papa Youssou reprendre ko c'est pas facile. et aussi ñun yàlla may nañ ñu réussir ko loolu sag la ci ñun rawatina mu toog ñuy way ba mu kontaan ba xolam sedd parce que da lay rek que ne ñun maanaam peut-être moom mi ñuy bàyyi xel. parce que tey bàyyi bàyyi ñu xel weesuwul man à bas âge mu jël ma yóbbu ma Bercy en deux mille vingt et un dem Bercy dem seenu Bercy taxaw di way kon loolu ça veut ko que maanaam soññi la quoi ñaax la. te woon la que ni yow maanaam am nga part maanaam am nga part ci ci ci yëfi et vraiment looloo tax nag à chaque fois duñu toog dañuy gëna liggéey di gën a liggéey parce que nag petit à petit l'oiseau fait son nid waaye. te boobaag léegi yaa ngi góorgóorlu nag macha allah yaa ngi ci sa yoon yaa ngi doxal lu am solo euh, ñu gis aussi Moustapha say son day soriantoo di indi joli cœur y a de ans nga ñëwaat. lu waral son yi di sorianto choix la wala équipe bi ngay liggéeyal ñoom ñoo choisir tracer la sa plan de carrière noonu. waaye mën naa ne choix mën naa ne aussi manam liggéey moo laaj loolu parce que tey nit booy def dara nga def ko manam mu nekk son boo xamante ne wala mu nekk projet boo xamante ne lu doomu aadama yépp bëgg la kon tey manam faw nga jël temps bàyyi leen ñu consommer loolu te tey boo xoolee Joli Cœur ba tey ji nii am na yeneen son yu nekk si diggante mais teewul aussi manam gars yi ñu ngi koy con ça veut dire que manam liggéey boo ko defee mu jaar yoon mayal temps gars yi nga xamante ne ñoo déglu manam ñu jël seen temps déglu ko te Joli Kër son la boo xamante ne ba tey ba tey ba tey ba tey nit yaa ngi koy déglu e vraiment loolu aussi réussit la boo xamante ne maanaam Prince Art def na ko ci ñun parce que ñun yaakamtiw ñu parce que liggéey moom boo koy def mu nekk liggéey bu jaar yoon jarul yaakamti parce que tey booy génn dara génnal loo xamante ne lu am valeur la de ce fait fii ak 10 ans ou bien fii ak 5 ans même ngay génn si diggante bi sax nit yi dañ koy déglu parce que maanaam liggéey la boo xamante ne dafay jaar yoon te booy liggéey dara sonn ci def ci li ci war. maanaam fii ak 10 ans maanaam nit yi duñ ko bàyyi di déglu et ñun nag loolu mooy suñu objectif waaye. ma waral tënku bi Moustapha kenn du ko gis ci yenn programme yi ci yenn chaine yi. non peut-être nag man <laughs> peut-être man nag man maa xaw a réservé wu tuuti mais maanaam peut-être dina changer quoi dina changer waaye. <laughs> mais nag da nga indi loo xamante ne macha allah da nga ci da ci way ñu jar a way mu di lebuy actuellement mu yëngal jabono. <laughs> wa lol nak lol mom aussi dama ci sawa di wax parce que tay len rek dafa neex moy nga nga xam fi nga bok xam li nga don et na ma nek lebu et je suis fier nak parce que doomu tëngeej laa lol mom dama kay faral di wax ci kaw dama ba ci kaw man doomu tëngeej laa doomu lebu la te tay nit olof dafa wax lu wax bom solo moy bay ci say umu tank et nit man na ne boy def dara nga mën ko ak nga ñak man wala ngay def dara gëm ko njëkkee ko ci fa nga dëkk te wala nga njëkkee ko ci fi nga bokk te way la boo xamante ne maa ngi ko tuddee ab lébu mu neex ma lool nag parce que tey jii nii dañ ciy rendre hommage ay nit yoo xamante ne ci ci ci ci ci biir waay bi ay nit yoo xamante ne maanaam lu ne ñu ngi koy daj lu ne ñu ngi koy jànkonteel maanaam façon façon coono boo xalaatee ñu ngi koy daj ci biir géej gi di dem dëkk ak dëkk di def ay weer ci géej gi Eh, ñooñu parfois nit yi duñ leen bàyyi xel mooy mooli ndax mooliñ maanaam ñu ngi dugg ci biir géej gi yàgg ci géej gi loolu ak ku ne xam ne géej na mel amul bànqaas géej sedd na mais teewul ñoom ñu ngi continuer di dugg ci biir géej gi di dem dëkk ak dëkk dafa def ay weer dafa def ay semaine ay rien que pour nappal ñu jën indi ñu lekk moo boo xoolee ci fin woy bi maa ngi naan si géej danay ngelaw géej danay sàmbra mool danay réet ci géej mool danay jommi géej waaye terewul mool tàbbi nappi jàppal la jën ku lekk ceebu jën penn mba ci Sénégal waaye. son bi ñëw ñëw ñu adapté ko lépp yëpp takk ba dëgër ndax dañoo mën a sot. ñu ko bëgg nag non c'est que doomu lébu moo mën a sot parce que tey maanaam danaan su mbokk la rek damay sot te ku xam lébu xam ko ci maanaam solidarité et vraiment mu nekk son boo xamante ne ñoom dañ ko bëgg parce que maanaam j'ai reçu pas mal d'appels yoo xamante ne maanaam dañ may woo kontaan ci loolu bëgg ci loolu et loolu moo ciy sama sat an loolu mooy def sama mbégte parce que tey nit amul lu ëpp nga génne projet wala waykat amul lu ëpp nga génne projet wala nga génne dara nit yi bëgg ko maanaam di la solicité di la yokk jom di la yokk courage ndax ay ay ndaw lañ mais teewul ñun ay ndaw yu xam li bëgg lañ ay ndaw yu am ambition lañ ay ndaw yu xam fi ñu jëm lañ ay ñu xam lu ñu war aussi parce que nag tàggat nañ ñu si yar nañ ñu si def nañ si ñun ay jikko wala ay qualité yoo xamante ne maanaam ku ñu gis rek. maanaam da ñuy naw wala da ñuy bëgg te yàlla rek tax nag. maa koy seede vraiment loolu moom maa koy seede maa ngi ni maa koy seede mais nag ki nekk seen ginnaaw war naa mën a nekk mu di Tata Ngoné Ndour di seen yaay yàgg leen coaché donc macha allah ni nga mel yoon la nga mel nii ndax ki nekk sa ginnaaw la. dëgg la waa nag parce que boo xoolee Tata Ngoné dafa nekk nit boo xamante ne jigéen bu bu bu bu bu jàmbaare la koo xamante ne liggéey wàcc tëdd këram. dox farata wax farata manam ko xamantene manam ñun bo xolé ni ñu mel nga wara mëna mën manam ñun lepp moko ko def ci ñun parce que tay manam à chaque fois ko xamantene bo génné ci télé bi wala bo bo bo bo génné mi ngi xol yow soy comportement mi ngi xol yow ni nga mel mi ngi xol li ngay sol mi ngi suivre sa jang mi ngi sa lepp yar la parce que bo xolé seen petit galé manam yar nañ ñu def nañ ci ñun diiné duguñ ci waxu jambul waxuñ lu ñu nekkul maanaam dugguñu si daray détail et loolu yëpp moom moo ko def si ñun ñu koy sali aussi sama yaay moo koy ñaanal bu baax a baax di ko déwénati di ko baal ak ci bisu it gi tey ah, di ko ñaanal gudd fan mu dund dund ba fekkee projet yeeg lépp fekkee lépp lépp lépp incha allah yaa bay waaye loolu am na vraiment ndax kenn du la dégg ci yenn yi kenn du la dégg ci showbiz kenn du la dégg ci bad buzz yi Moustapha donc muy wane rek tey ji macha allah li ma lay ñaanal rek mooy nga yegg na yoon Moustapha aussi nga saf sàpp ci mbalax mi <laughs> la xaar ci style musical waaye bien sûr mana nañ ñu xaar ci beneen style musical parce que tey jii nii maanaam ay ay ay ay artistes lañ yoo xamante ne way nañ fi façon wayu nit ku nekk reprendre fi way ku nekk muy wayu français di wayu mbalax di afrobeat lepp dañ koy way kon gaay nañ ñu xaat ci lu ne parce que ñun manam nekkul dañu focaliser ci mbalax rek manam parce que mbalax buñ ko def c'est parce que manam suñu tradition la et lu fi suñu maam yi la té nak nit nak bo ñëwé ci kër fekk borom kër gëna mi évoluer manam da ngay doxé ni mom même si après yow di ci si xaw a dara mais da ngay def ni mom parce que tay ñun manam mbalax moy manam lo xamantene mo nekk et pourtant y' a y' beneen style de musique boo xamante ne maanaam du suñu musique ñun Sénégal te pourtant ñun ñu ngi koy roy ba di ko dàq sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def et vraiment mooy que dafay wane que ni artiste waroo nekk ci benn style de musique kese parce que maanaam am nga ay soppe yoo xamante ne maanaam du ñu déglu lii leneen la ñuy déglu et pourtant yow da nga war a pare pour maanaam di leen bëggal à chaque fois ci loo xamante ne lu bees lay nekk et moo tax nañu xaar Moussa Wass yàgg na. <laughs> Moustapha ñep ñi ngi laaj aka album bi album bi fum mu toll. non album bi mi ngi ci yoon bi mi ngi ci yoon bi parce que boo xoolee son bi ñu génne nii ci projet bi la bokk projet album bi est vraiment mu nekk son bu bu bu bu doy waar te yi nekk si biir sax gën a saf waaw ah waaw kon gars yi nañu xaar parce que lépp nga ngi ci biir maanaam. lépp lu ko lépp lu ko gën doy waar moom dina metti de. non parce que li ngay wax maanaam li li nga li nga wax léegi nii rek maanaam moo ci nekk mooy que ne. maanaam ñi di dañuy xaar nga ñëw indi leen mbalax bu saf-saf nga ñëw indi leen leneen loo xamante ne loolu maanaam gars yi peut-être xamuñu ko si Moustapha te pourtant Moustapha maanaam am na qualité yooyu am na capacité yooyu et vraiment nag waaye dama ciy sawar nag parce que projet bi album bi mu ngi ñëw dans bientôt lu day war sax. Moustapha dañuy bëgg aussi des ñu daal di doxantu bu ñu reeree ba pare rek am fuñ la fekk wala benn bis rek ko toog rek di ñu wayal ni dafay dañ lay namm aussi nga toog rek di wayal nit ñi di bëggal soppe yi. waaw si loolu nag doon nañ ko def mais dañ ko doon def ak période boobu noonu dëkk bi xaw a yëngu crise politique bi ah dëkk bi yëngu ñu ne nañ ko aj mais booba tey nag defaataguñ ko ñu ngi koy waaj nag si mois de juillet bi incha allah parce que li tax ñu koy tàmbali sax mooy que ne xam nga ñun ay doomu tëngéej leen et vraiment on est fier te boo xoolee Teungueth FC moo jël championnat Sénégal ñu war leen a sargal nag le 13 ma ànd ci ak comité supporter Alerio bi ñu war a sargal waa Teungueth FC sargal Teungueth gépp te nag son ab lébu bi li ci gën a neex mooy falaa koy ngénte li ci woo lébu yëpp nag après loolu nag incha allah dina jàpp benn date boo xamante ne tous les tous les samedis ou bien tous maanaam chaque semaine ñu joué ñu joué si benn boîte bu nekk Teungueth incha allah incha allah

parce que yombul ngay déplacer wu ñëw ba te ndax ndaxte ngay da sori surtout si bisu it mu nek bis bo xamantene am ñepay japp mais teewul ngeen dag seen ay yité ñew vraiment ñu leen gërëm ci lool di leen sante bu baaxa baax di sante rek képp ko xamantene yaangi yaa ngi doon Moustapha ak fo mën di nek ma ngi lay ziar di la di la baalu ak bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu waa gépp di leen baalu ak aussi ah di nuyu sama famille ñepp ma ngi leen di ziar di baalu ñëpp àq di di ñaanal sama yaay yàlla guddal fanam ñaanal sama papa yàlla suuf ci kawam e, di gërëm aussi waa Moustapha famille amuma seen fay leen ziar bu baax a baax a baax a baax.